bul fàttee bés cloche de notification bi pour vidéo buñ dugal nga mën see jot. Modou léegi da nga may bi nga xam ni Sonko démb la euh, euh, daal tasala mi hmm. dégg naa ñu ne am na ci ay jaaykat yoo xam ne démb jaay nañ seen àdduna du mus sa jaay ci blouson bi loolu lañ wax mooy tombeeg li Alaaji doon wax léegi. léegi nag li Sénégal yi bari di jaaxle ñaawlu ko mooy Ousmane Sonko lu tax démb ñu convoqué ko ca. Euh, tribunal bu Dakar mu ne ci mbedd Dakar yi di football ak di soli pollution ak di puusi policier ak di joxaat beeg ñoom ay baaraam Mame Mbaye Niang seetaan nañu ci ab mu ni waa ji dafa daw waaye wii wii jaari yi dina indi kayit bi ni lii mu koy wax dëgg la kon léegi da dugg mi dugg nga si mbir mi non ñee dugg ci mbir mi yow fu la neex ah, léegi mbir mi nag waaw ku demee ne Mame Mbaye président Macky Sall war na koo delloo njukkal ah. waaw bisimilah yokkal ko saleeram yokkal ko ay postom lu tax ndax dafa am mérite hmm. ndax euh, ñëpp xam nañ ni ba si Sango mi da ko daan wax kii daa bëgg ñu naan diw ak diw waaye loolu mënuñu koo am Sonko Macky rek nañ mën a am Sonko président Sonko président moom nag ñëw na xamal ko ne am nga leet naa am am nga leet naa mooy du yàgg Sonko man ak Sonko la loolu bi mu ko wax président Macky Sall président Macky Sall gëmu ko woon bi mu koy fal hmm. mu ne ko maa Sonko la Sonko président Macky Sall gëmu ko woon d'accord waaye si lañ doxal tuuti mu xamal ko ne ko man ak sonkoo la fi mu nekk nii foo man di dem yaa ngi gis Sonko Mame Mbaye Niang ci journal kuy wax da nga naan Sonko Mame Mbaye Niang mhm. kon nag loolu mérite la d'accord mu rëy noo xam ne kenn amu ko woon si waa APR mais Mame Mbaye am na ko benn mhm. beneen bi Sonko dafa def erreur erreur erreur def digganteem ak Mame Mbaye mooy lan mooy tudd gi nga xamante ni tudd na ko wax si moom ndax Sonko da daan wax dara ma naan ah. waa hélas Sonko lan moo tax bu tudd tur mu ne ma tudd du problème ñoom xam nañ moom lay waxal. Mhm. léegi nag dem na ba mbedd moom mu sol woon doon wax nag da dañuy rek Prodac mais mhm. day ñëw wax wax li muy wax dem xam ne kii lay waxal mais bii dafa ñëw di a tudd. d'accord mën naa ñëw wax li muy wax comme na mu ko daan mhm. lii penalty bu mu dul raté. waa APR gépp ne nañ ko penalty baa ngi nii nee nga yaa koy dóor ñëpp jël nañ sonde joxaat teg nañ penalty bi jàkkaarloo góor yi. léegi nag penalty bi xalaatuñ ko raté. Mm. waaw loolu daal laa si laa si jàngat. d'accord en attendant euh, démb nag ña nga woon tribunal. mais tribunal bi boo demee. Mm. da nga xam ne carrément suñu ko du ñoom ñoom xamaloon nañ ko seen bopp. ndax laabiir bi nga xamante ni takk yi laabiir nañ ko. ak mbaax gi nga xamante ni takk yi mbaax baax nañ ko. waaw bu ñëwee saa li nga def foo jëmoon loo bëggoon nga man damaa bëggoon buntu bee ngay awee demal ngay damaa am naa moom buntu bi ngay awee ñooy journaliste ñu ne fee ngay dem amul benn radical boo xamante ni tegal nañu nga xam ne soo ko ñëw fii jàmm fi am mais dem bi ngeen di dem ci kër góor gi gis ngeen ab jëmbarloo foofu non jëmbarloo bi sax wet gii nii kii na mais jëmbarloo ba sa tournant ba noonu gars yi di noonu échauffé wu échauffé wu échauffé wu échauffé wu maanaam ñun ñaar ñëpp waaw sa wetu kii bonaak foofu lañ dem ñii ña jël xeer ñaar <laughs> ndox xaaral échauffé wu mooy lan échauffé wu maanaam waajal xeer waaw kenn ku nekk wane si kii wane wane see kii si la distance ab du topp doon def par deux mètres bi muy daw boo xool kii bi suñu émission bi muy génn ab topp tànk bu ko tegee man maa ngi yor micro ana ay ana topp nekkati ma wax sax yàlla bi gorom bi ab saaru gorom la garanaat bi police dañu ko sànni xam naa dafa am ñu ko espéré garanaat bi affaire romb ñu naan nii ma naan topp jëlal ma di lii lan la nekkati ab garanaat la après bir ne téen kenn ku nekk moo la kay Fatou Faye ñëw di ma laaj bu wàllu fajee nee na ma dégg naa asa dañ ko sànni bere naan bu départ <laughs> mais doo wum ndax man dama ni bëri gars yi may may chroniqueur ngay daal ma fi reene ndax man mun maa daw ñaan may chroniqueur ngay daal nit ñi dañu am si man yaakaar mais daal nañu xam ne réew mi son yi mhm. ñun ñoo ko bokk suñu réew la du moomeelu kenn naa ma ko waxee woon gis nga buñ xamee ne rek Sénégal ñun ñi fi nekk ñetti pàcc la rek suñ ko xamee mu neex benn bi mooy première deuxième troisième première bi mooy Sénégal gépp Sénégal gépp mooy première bi. deuxième bi mooy sunu takk der yi. troisième bi mooy président Mack Macky Sall wala bu mën a doon mooy président bi jiite réew mi. première bi nag moo jur yëpp da jóge fii nga daal dem doon takk der yem si deuxième bi mën nga faa nekk ba dee. wala nga jóge fii jàll weesu deuxième bi dem sa troisième ba doon président mais da ngay doon juraat si président gi awaat si deuxième bi wàccaat si première suuf nag na lépp ñëpp si jaajëf ku ñuy wax euh, euh, kii Ndiaye am na soxna suus nekk bitim réew ku ma yóbbante nee na fii lu courant yi waroon wax bu ko laal ndax dalaa yéene doomam ñene ca bitim réew a <laughs> moo tax mun ma asan bu mu laal fii ah. waaw waaw centre pass yéen léegi man daal bu ngeen ko laaloon ma laal non kenn du la ko ndigal ma ngi la ne ndaw si day làkk français te déggoo français dinaa dégg maa ngi soxna si day mer na sax jël na na ab salaire teg <laughs> alaaji Euh, mambay de mu mel ni démb njàpp na njàpp mu garaaw ci biir tribunal gars yi topp ko booy topp ko ne ko yow la fi président Sall dese hmm. yaa sagal président Macky Sall hmm. ndax yaa tax Ousmane Sonko laale lu ko kenn mës a defloo yaa ko defloo noo gisee li xew démb donte ni le 16 war nañoo jàkkaarloo waat waaw man de wax dëgg yàlla ngóor sa su ngóor sa di nga tudd léegi non alaaji maa mbay ñaa laa waaw waaw xam naa ko c'est di ko tudd man laa sax euh, parce que ay mbiram wax dëgg yàlla euh, daf maa kiiwut daal parce que dafa dama xam ne ay mbiram amut njariñ bu bari newu ci ba tax daal ay mbiram man sawuruma ci <coughs> waaw sawuruma ci mbiram parce que xam nga tax euh, Assane Mesere mii démb daf ma envoyé benn vidéo waaw boo xam ni euh, bis ko Cheikh Bara di wax démb ci émission bi waaw démb laay soog a dégg lu wax yi mooy bi ma ko asanaa waaye nga xam ni wax na nit ki vidéo sax sooy waroon nga koo teg waroon nga koo teg wax ju ñaaw ju wax na ko lañ ko soo wax wax na ko Ousmane Sonko moom moom mi ne dañoo yàq deram wax na bitim réew Ousmane Sonko am doom wax joo xamante ni bii tey kenn du ko wax ñu ko wane ci wax na ko mhm. donc xam nga yu mel ni boo ci yóbbu nit ki ci yoon mhm. nga ne dafa yàq sama def ba noppi te yow lu ne wax nga ko ne mais Ousmane Sonko moo yóbbul kenn ci yoon ah, non c'est xam nga mooy problème moo yóbbul ci yoon loolu mooy passé na fi loolu loolu mooy dafa mel ni da taxaw taxawaayu ñoom moom yoon léeg-léeg yow nit ki wax la loo xam ne mm-hmm. bind nañ ci yow ci sa bopp toog nga ci ab émission ca faram mm-hmm. wax ko yow ci sa bopp démissionné nga ne ngir ñu seetal mbir mi mm-hmm. nga ne yaa ngi yóbbu mbir mu ci yoon c'est bon par exemple saa ngay xool doo xam lii lan léegi nag xam nga loolu yëpp son bi li muy indi rek maanaam même bu fekkee ne dañuy dem ba mujj gi yoon sax di ko bañ koo jox dara mais ñoo xam nga luñ bëgg oh. lii Assane wax rek lañ bëgg maanaam mm-hmm. maam mbay Sonko gërëb gërëb gërëb gërëb gërëb gërëb mm-hmm. loolu mooy li nga bi moo leen yitteel mais leer na leen ni mm-hmm. li journaliste yenn yi di jéem a ruumandaat ak a jéem wax mën na koo xañ candidature ak lii ak yooyu. Hmm. xalaatuñu ko. nga affaire ah, ah. léegi kon ñu déglu Mbaye euh, mi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu diffamation am na yu bëree bëri yu mu wax Ousmane Sonko waaw. tey Ousmane Sonko wax nañ entreprise bu perte Petro-Tim boo xam ne Abdoulaye Wade ko Abdoulaye Wade moo ko jox deux cent mille pour mu Je ne peux pas être

mu mel ni lii lépp ci deru Ousmane Sonko dañ ko teg. nga am njaboot am jabar am yaay am doom. mais li ci gën a garaaw. mi ngi wax lu garaaw ci nit. mais ki koy laaj moom wax garaaw na mi gën a garaaw. ok si mooy may amul lenn loo xam ne mel nit buy wax lii mel nii sa plateau da ko war a freiner. waaw parce que li muy wax benn preuve dafa wax pour yàq der. si mais da nga ko war a wax arrête. si comprendre. invité wu ma Assane Seck pour muy yàq deru son yi. dem ba wax ni si di wax wax yoo xamante ni maanaam bu ñu la posé am na domaine boo xamante ni bii woo woo woo doo a freiné. Hmm. doo ko a nag am na loo xamante ni bii nag euh, defe naa ni bu ñu koy jàngalee ni journalisme tamit la nga. a mais man xam nga man fii laa toogoon ma ni. waaw ci yoon. waaw léegi eh, mais nii ñu waxal Ousmane Sonko. non non après ñu ko. waaw lii dafa gaaw. waaw non c'est que dama la a wax ne yoo xam ne ba léegi lijjanti wuñ ko. moom wax na la ko wala waxuloo ko. wax ay plainte yoo xamante ne bii kenn. faale parce que maa ngi lii mu wax nii moo gën a grave li Ousmane Sonko wax. lii mu wax nii léegi xam nga li mel ni rek war ngaa rusa yow bu dee nit nga mais da ngay yóbbu nit ki ne dafa yàq sama dem léegi nañ fekk liñ la waxal ak yow liñ ko waxal. vraiment. yow ku gëm ko ci loo xamante ne bii tey ay doomam ay sëtam buñ ko dégloo ëllëg. Mm-hmm. wallaay quand même. wallaay politique lenn yi jaru ko mais nag kaay wax la leen foo gis ñenn ñi mooy ci politique nii. Mm-hmm. ne buñ ko bàyyee torox. Mm-hmm. Ah? amuñu woon dara bañu si bañ ca nekkutoon. maanaam moo tax ñu naan bu ñu bàyyee toox. ah mais 2000. Euh, parce nag ci ay nguur bu métti lañ dugg. 2011 bokkoon na ci ñi jàppoon te giri assemblée nationale. waaw lool. waaw jàppoon ci assemblée nationale 2011 bu ñu taxawee nii c'est parce que euh, maanaam. Hmm. dama déglu Abdoulaye am solo mu ne boo ko joxee ku mu xajut ci bopp bi. Hmm. toj toj bu ne dana ko def.